thank you ak loolu moom prisonnier Luc Nicolaï de jamono juñ toll nii de waaw Ama Baldé 50 millions contre mu bañ 80 millions mu bañ est du perte 10 perte less suñu lamb door meilleure école meilleure écurie suñu lamb ne samedi bii la ñuy joxe résultat yi xam ban écurie moo ko jël 5 victoires 3 défaites écurie Sénégal bi ñoom ñi ngi góorgóorlu taxaw ñi ngi góorgóorlu taxaw bu baax a baax gën a tiitir noonu la demee troisième passe ñu dem fenêtre comme suñu làmb door la suñu làmb ne samedi bii aha la ñu amal de maa la wax loolu wax ki xam ne école libre wala bi nga jël ñu taragal ko jox li nga xam moo di kubam ba tey suñu làmb door la suñu làmb ne critères yi écrit bu amul 10 combats ci mën a bokk maa la wax loolu doo ci bokk de 10 jëm kaw kese écrit Kër Massar mbooloo tàmbali nañ entraînement yi de bu baax a baax a baax tàmbali nañ entraînement nee na moom mbay gi doom bawol bi jël na poids de jël na poids du poids naan doom nag de déedéet suñu làmb nee na mi ngi ci super forme waaye dafa jël masse bu baax a baax a baax Nokia bu bari jon suñu làmb nee na Nokia léegi yaraax la dëkk ma nga yaraax gannaaw bu mu dëkkee Medina jóge fa dem rëbës léegi ma nga yaraax Ibrahima Mbaye di coach écurie Fass Ibrahima Mbaye nee na man ànd naa ak Serigne Ndiaye 100 pour cent ci mbapat yi muy dugg di mbëkkante waaw ànd naa de am na combat arène waaye nag li muy dugg ci mbapat yi di mbëkkante bu baax a baax man ànd naa bu baax xës dadi moom moo war a bëre ak ki nga xam moo di la rapide le premier décembre lay doon premier combat journée Fallou Ndiaye lay doon ginnaaw amateur yi ñuy waxtaanee grand contre petit yu bari bare bare suñu lamb ne beneen grand contre petit amateur yi génn nañ ko muy kan ak kan Eumeu Sène Sène Samba Xaar ak kan Sa Thiès volcan de Kër Massar suñu lamb ne grand contre petit boobu amateur ñu ngi koy waxtaanee de quatrième moom Modou moo fa nekk le roi des arènes moom Modou Lo le roc des suñu lamb ne ginnaaw bi mu juboo ak Luc Nicolaï du promoteur bi 650 millions Luc promoteur bi jël kanaar kanaar ko karaj de millions contre Tapha mu lànk ne gars yi leen wàññeeku leen ñu jox ko ki nga xam ne moo di Modou Lô teg si làmb nga xam ne dañu leen jël di leen pousse pour ñu jëm ca kaw waaw lu mel noonu lañ nekk di defal ki nga xam ne moo di Reug Reug ndax fu ñu toll nii ñuy wax combat Reug Reug ak ki nga xam moo di Bombardier xam nga ne loolu loolu mi ngi mel ni rek Sa Thiès Gris 2 mi nga leen doon pousse yóbbu leen ca kaw Balla Gaye 2 Eumeu Sène nee na ñaar ñooñu booy wër ndaanaan ba yegg si ñoom jàppal te dëpp maa la wax loolu ne ñoom ñaar bi nekk roi des arènes suñu respecté woon seen carrière kon dinañ yàgg ci roi des arènes bi lool lool lool man booy sey benn rëccu rek laa am ci làmb benn rëccu kese li ma doon mbër li ma doon mbër kese moo ma métti man bu dem doon tey ko duma maa ngi taxaw di ko xaar man nan faal bu grand yof mbooloo kii xaar ay adversaire du kenn ku dul kan vieux top bu rek énergie vieux top neen dama am envie caatu seeraas guy gi mu a a ngi góorgóorlu mi ngi taxawaat na seen tëdd fil bii di Maurice dafa daanu seen ko su ma yoon seen ko su nee bilan bi baax na bilan bu am solo la xale nañ gën a góorgóorlu déwén a la indi de Kër Massar ngeen gis noonu de stade Léopold Senghor ñu bëre xeex dóor songante Boy Niang 2 amul benn werante jalgati laam comme ni nga defee saa ne da nga lam tey kan ak kan fa nekkee Bombardier le b de Mbour ak kan Ipongaari moom Ipongaari mooy wax de mu ne mbokki amateurs grand contre tàmbali na moo xew Bombardier pare na pour commencer li nga xam moo grand contre petit moom Bombardier di ko tonn mu ipongaar yi dolli ci xale bu ñemee grand yi na ñëw yéen kaay yi papa pëng yéen kaay tey maa ngi koy may mon ami moom frère borom tëngeej badu mbay bu gàmmu gay jëlal yéen kaay tey yaay borom seen doom day organe borom yéen kaay moo fi jaaroon dem naa wasalaam